jaajëf waay bilaay jaajëf waay. amul leneen jeex na bilaay. nañ cee rek sigil bilaay yéenay soldats yi xeexi woon. acca jaajëf gaynde champion waaye ma jël meer ma jàlloo. gaa yaa ngi nii. ah borom jàllaat bi génn. Baye champion nga de bilaay rek bilaay maintien rek jaajëf baay jaajëf waay jaajëf meññ jaajëf kontaan nañ de jaajëf jaajëf

patriote patriote non bi neex na billaay bi neex na patriote amul leneen kaay demal ne aca Thank you. bravo patriote jaajëf waay jaajëf waay jaajëf Come here! But yellow! No, somebody! mooy ñaari gis nga de bi de mooy ñaara mooy affaire yëpp ñaara mooy. acca. waaw. sama bi rek. yaay bi rek. projet bi rek. jaajëf booy dama leen dalal kanos xam baax man jeex quoi mais booy booy <laughs> ay gaynde lañ bilaay ay gaynde lañ ay gaynde lañ

voilà. may ma Diop. dund ko ak dignité. Diop may ko dund ko dignité ba ci ma. dund ko dignité. waaye nit nit mas bi nit mas bi bopp. dund ko ak dignité ba ci ma. naka la mooy dund def jaama. gaa yi naan na mu woo mas bi. mais dañ naan na mu bàyyi. dañ naan na mu bàyyi. kii la. nañ cee rek. bilaay. barke Serigne Bamba Sénégal amul sa fay. le Sénégal est billaahi oh, kontaan nañu billaahi. Eh, royu kaay billaahi royu kaay billaahi. jaar naa billaahi ndaanaan yaa billaahi. soldaar yaa ngi nii soldaar yaa ngi. barke sëñ Tuubaa. bàyyi xool patriote yëpp. barke sëñ Bamba am mbégte lañ sant wóor na yàlla. gay na nga garmi nga dund nañ koog yow fii nga génn wane na gay na nga nga duggaat wane na gay na nga. dañoo nekk sa bopp na nga fii génn wane sa bopp na nga. duggaat wane na sa bopp ne gay na nga. Sénégal est fier de toi et barke Serigne Touba yow xool. billaahi yàlla moo lay roy kaay ndaw ñi nga jeunesse bi ci yow la ñuy roy amul leneen amul tiit amul ragal nañ ki may madame Mbacke. maa ngi représenté sa yaay man maay sa yaay. Diana Diop mooy sama cousine. Ah. moo tax man ngay laaj madame Mbacke lu tax nga am xadara. ma ne leen xamu leen ne Mortala sama doom la xadara. Mortala ak Bilal yaa ngi Bilal Diatta yéen a bokk benn maam. am na yaa ngi Bilal yéen a bokk benn maam. parce que Seydina Mohamed ma du faale awa Diop ngay jël ku jokk ba sa maam. booy bi tamit bañ ko jàppee booy bu ndaw la woon mais léegi dafa màgg kaso sax deux mille deux vingt trois lañ ko jàppee woon. Mhm, mhm. voilà boobu ba léegi. Mhm. booy bi nii. booy bii la bi lañ jàppoon. te jamono boobu noon seconde la doon def quoi ndeysaan. gis nga am na benn année de retard. Zeynab ah Zeynab Bintu waaw bébé Zeynab Bintu la sax. ndeysaan waaw frère ziar nice ni sant